nga musal ma ci sawara allahuma inni asaluka aljanna wa astajiru bika min annaar allahuma inni asaluka aljanna wa astajiru bika min annaar xadiisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen rafetalee lislaamam bépp tuyaaba bu mu def des na ko ko bindal fukki yoon ba juróom-ñaar téeméer yoon bépp ñaawteef bu mu def benn yoon rekk lees ko koy bindal xadis bi Buxaari ak Muslim nettali nañu ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida axsana ahadukum islaama fa kullu xasanatin yacmaluha tuktabu lahu bi ashri amsaaliha ila sabci miati def wa kullu sayiatin yacmaluha tuktabu lahu bi misliha rawaahu buxaari wa muslim waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi six heures sept di juróom benn waxtu yu tegal juróom-ñaari simili tisbaar treize heures neuf di benn waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñeent tàkkusaan seize heures vingt-neuf di waxtu yu tegal ñaar fukki simili juróom-ñeent timis di juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak ñeent gée 19h55 di juróom ñaari waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètres